ñu dem gël tàpp gël tàpp gi xamul lu fa xew njaay hmm. benn maire moo ñëw dugg ci benn kër romb fi benn xale bu jigéen rek maanaam mel ku tàggal koo sagoom maire bi waaw hmm. commencé def fi dof xool xëcc xale bu jigéen bi dàqanteeg moom ci biir kër ba dugg ci biir néegam summeeku ba set wecc lan mooy position gynécologie ayo <coughs> damay laajte ndax ndaw si ne daa summeeku def position gynécologie dama xam nga sama jàng daa égul ci yooyu bi déggee ko bi daal dof dof na ba sàcc iPhone 13 xale bu jigéen dem yoonam waaye moom it caméra yi dañ kaa jël ak yaramu neenam vidéo bàyyi di jaay ba muy sàcc téléphone yi eh, jël na ko ba dem yoonam eh. parce que xale bu jigéen pour moom ab dof la ko seqal nekkate ah, ab nante la buy buy dóor dana feeñ man la Awa Dia dëkk Gueule Tapée rue 53 angle 62 man samedi soir ay vers 18h40 yooyu dafa am ben maire bu sol ben bu rouge am couleur bleu bleu nuit dugg fi suñ keur ñew fi melni dof yooyu dafa ñew comporté comme dof nek fi di yuuxu di fecc ak ñëw rek sama loxo nee man la soxla daf may dugal ci neeg bi par force man dama bañ dugg ci neeg bi maire bi gaawoon te dugg sama kaw néeg tok sama kaw lal fek sama téléphone mi nekkoon ci kaw lal bi mu tok ci kaw lal bi ko simmeeku tout nii comme yaayam ni mu ko juree léegi man comme dafa simmeeku rek man ma xaw ma xaw a ragal meer bi te en plus dafa yore woon benn saak te saak bi xaw ma lan moo ci nekk léegi ma xaw a ma taxaw si buntu bi di négocier pour meer bi génn meer bi génnul mu tëdd si kaw lal bi def position gynécologie simmeeku ba set wecc comme yaayam ni ko juree après man nag ma tiit ma génn di ma tourné noonu di woo ki ma taxalee néeg pour mu ñëw génnee ko léegi kooku moo ñëw mu génnee ko jël bant génnee ko après bu mu génnee ñu tëj kër gi bu tëjee nag mi ngi ma doon menacé di ma ne foo mënti jaar naa naa la am parce que yow laa ba génn kër gi ay ko amee ba bi sàcc iPhone bi yóbbu ko léegi kër gi aussi dafa amoon ay caméra de surveillance léegi vidéo yi moom laa la envoyé noonu waaw mu yóbbaale sama carte sama pièce d'identité ak sama carte bancaire aussi sama numéro carte bancaire aussi yóbbaale na ko ko léegi instant bi woot woote naa pour ñu bloquer compte bi déjà waa Wave ak waa Orange Money aussi puce bi aussi récupéré naa ko tey dem naa police aussi pour porter plainte mooy loolu maa ngi nekk en attente léegi man dama bëggoon ku mën ku ma mën a jàppale ngir yàlla pour ma mën a gisaat maire bi ma gis ko ku xàmmee maire bi daal ngeen aidé ma pour ma xam ku xàmmee maire bi pour mën a identifier maire bi benn maire bu xees la ni sew dafa xees ba pare sew ngeen xàmmee ko daal balaa muy demaat feneen sax di fa ndax technique yi gars yi yor léegi man daf maa jaaxal. Ndiaye naa la jox vidéo yi. yàlla nañu yàlla. gël taape gi doole doole gël gi kon ñu yaasin puy. Eh, xanaa kër yi léegi foog mu am caméra. même caméra yi jaruñu dara déggoo li mu la xar yi ñaari xar yi lañ sàcc ci borom. ngor lañu ko sàccee. sàcc na sàcc na ay xar nag. yu rafet sax. waaw macha allah. sàcc na ay xar mais yàlla na ko yàlla weer. xar mi daal daf benn bi dafa weex baat bi ñuul ñu takkal ko benn collier beneen bi dafa weex benn melo la delloo leen xaru jàmbur yi.